ca ca Kànjal Diop ak ca Batra ñu dikk ak ci xibaar yi. li ci gën fas fës nguur gu bees gi am yéene eh, jëlee ci Sénégal base militaire yi fi France am eh, boroom xam-xam ci moom lu mu ko ràngee colonel Mamadou Athie rafetlu xalaat boobu ndax dafa gis ne loolu bokk na ci li tax senegal moom ba dëgg boppam ci wàllum karange eh, coo topp kër gi di Nestlé grand rapport bu wane ne meew nido ak serelek yi ni jaay Afrique mopp sukkër yi buñ ci def te nag loolu baaxul ci xale yi tax baas kan wi ne dañuy bàyyi xel bu baax a baax meew mi ni naan ñàkkum mbir mu ñu fàtte waa SEN'EAU nag di wuti pexe ngir saafara jafe-jafe googu nga xam ne nee nañ ci lu yàggatul dina fa jeex dañ xibaaru bitim réew xibaaru tàggateeram ni ci yéene laataa ñuy jeexale gis ci sa ñuy waxtaane tey jàngalekat yi ak seen nekk yu sabab bi di recensement euh, jàngalekat yi ci Sénégal ministère de bi ñu dénk njàng mi di koy tàmbali nag tey jii mu nekk li gën fa ci xibaar yi ne su ni ci ay faram-fàcce Maysa Mbaye ak Abdoulaye Diop ñoo nekk ci machine bi mbokki ñi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru digg bëccëg yi dañ koy dooral ko wàllum karange gannaaw kàddu yi nga xam te ne ki yor kàddu gouvernement bi démb ci grand jury nee na nag ñi ngi xool ah, li nga xamante ni mooy déggoo yu dox diggante France Sénégal ah, jëm nag ci wàllum karange moom sax dàqul ñu daal di fi jëlee base militaire yi nga xam te ne réew France am na ko fii ci sunum réew loolu nag eh, borom mi xam ci wàllum jaadu la surtout que ñoom euh, nguur gu bees gi li mu wone mooy moom sa bopp te nag dafa war a ànd ak moom sa bopp ci wàllum karange gëstu ba ANACIM. fu mu toll nii Afrique dafa soxla moomaat boppam loolay waral ay weer a ngi nii wala sax ay at a ngi nii ñu bëri jóg ngir ñaglu taxawaayu soldaar yi jógee bitim réew seeni réew. rawatin nak soldat yu jóge France Fi Sénégal kilifa yu bees yi nee nak dàquñu accord de défense yi ak ñoom Mustafa Sarré mi di porte-parole gouvernement bi moo nekkoon ganuk grand jury niki dembe. Ben nous ne serions pas cohérents si euh, aujourd'hui suñu xoolaatul accord militaire yi dañuy woro ak suñu bopp woro ak wuroo itam ak li ñu digoon askan wi moo tax ñu yàgg nañoo wax ni Sénégal dafa war a moom euh, boppam warul dépendre ci kenn. la restitution de notre souveraineté militaire. ci gis-gisu colonel Mamadou Ath. lu mën a nekk la ndax contexte bi daf ko laaj. moom mhm. sa bopp mooy loo fu fekk da ngay toog. nga delloo si ko yow nga jëlal ko sa bopp waxal ko sa bopp donc def ko foofu lañ toll actuellement Mali def na ko kii def na ko et cetera mais ñooñu dañ ko def ci xëccoo ak xeex mais je crois que là dañ mën nañ ko def ci suñu coobare bopp toog ak ñun suñu expert toog ñu ne lu ñu lu ñu xalaat ci. coopération parce que coopération militaire il faut moi parce que armée dafa nekk loo xam ne mënul forcément nga tok sur le terrain national da ngay xol plus que ça da ngay dugg dans la stratégie mu nek ci égalité quoi dootul nek ci comme ni ñu ko defoon ñoo xam ñom ñoo ñew ñoo wax lu ñuy bëgg fi def ko fi ci walu défense lan lañu wara mëna def ngir mat suñu bop colonel Hadj amna ci xalaat. ñun ñoy set li ñu bëgg bu ñu discuter ñu xam nakal ci ban domaine la est-ce que ci domaine opérationnel cest affaire guerre la wala ci affaire logistique la est-ce que suñu stagiaire yi ñu wara a former PAM no pilote te kooku document bi ko yore moy bi ñoo maa koy rappeler c'est le SOFA Standard of Force Agreement document boo xam ne wax naka la ñële di togué ci sa dëkk ak yan relation ngeen am yeen ak seen soldat ak ñoom seen soldat ci lu yagu dara ci jamono Abdoulaye wad kilifa yu France ak yu Sénégal wat nañ ci seen accord de défense yi gannaaw lolu le France dal di wañi limu soldat yi nekkoon fi Sénégal ba tay ji tollu ñu sax ci ab bataillon lolé waral itam Sénégal dal di récupérer récupérer infrastructure yi nga xamante ne l'armée bi moo ko fi bàyyi. Anna Rocha wax ci leneen ji coow lu topp kër gii di nestale loolu gannaaw rapport di enquête boo xamante ni ONG bi nekk ci Suisse di Public Eye euh, daal di nay fësal ne nag euh, meew yi ni indi Afrique di ay céréales ak nido mu ëpp sukkar te loolu nag baaxul ci xale yi ñu koy jox euh, tax nag ñu daal di laaj fii ci mbeddu ndakaaru yi askan wi ndax ñi ngi bàyyi xel mbir moomu ak naka lañ ci doxalee rëpp reportage Fama Thion Penda dañ ko fekk mu sañse làq lu ëpp fanweeri at xale bu jigéen bi ñu ngi ko fekk ci ab boutique fii ci Gueule-Tapée muy nekk di jënd nag li mu war a waajal ngir mun a defar ndékki nee na nag coow li am ci produit Nestlé yi dégg na ko. tuuti rek laa ci ah, su may jënd produit damay xool quarité bi. xool date bi. Mhm. ñàkk sa dama am sama téléphone benn euh, application boo xam ne dafay scanner pour wax la ne produit bi ndax c'est médiocre c'est à moyenne. ngir bañ nag jënd loo xamante ni xam ko bépp produit bu mu jënd am na information boo xamante ni dina tax mu xam la ca produit ba nañu ko def rek date wa mu war jeex. parfois da ngay jënd yenn produit yoo xam ne doo def vérification da ngay ñëw rek jënd ko nga dem ba benn moment après man dama tàmm di xool dat bi ak euh, produit bi wala boo demee ba lekk ko goût bi nga xam ci produit bi ak goût bi nga xam ne moom moo war ci produit bi du bekk day changé. léegi loolu moo ma ma wut application parce que moom may mën permettre. dina la composant produit déglu bu baax bi dégg na coow li nga xamante ni am na nangu na ni sax Sénélec bi am na suukar. est-ce que di ngeen gis des bi. waaw dañuy xool date date bi dañuy xool qualité bi bien sûr. Mhm. nga ko en tant que boutiquier. coowal produit maanaam. ñu ne dafa am sucre ci suukar ci yi koy ñu ngi dañuy wax day am suukar parfois. réew yu mel ni Sénégal Nigéria mbaa bokk Afrique du Sud bokk ci réew yi nga xamante ni produit Nido siiw nañ fi lool. loolu te it nit ñi bëgg nañu ko produit yooyu nag nga xamante ni lu ci bëri gone yi lañ ko jagleel dañoo am suukar suukar soo xamante ni du yoon Fama John ci mbir moomu la ñuy des ba léegi ak Ascosen ñoom tamit yëkkati seen kaddu di naqarlu ñàkk yemle gu gis ne da ci am ndaxte bu dee tubaab yi ñu jox leen lu baax bu dee nit ñi ñuul yi Afrique ñu daal di leen di euh, jox loo xamante ne mun naa indi loraange ci wàllum wér-gu-yaram moom ak ndaw njiitu Ascosen ñu déglu ko ci ci jokkoom ak Salimata waaw ñun jàpp nañ ne lépp loo xam ni xajji la ak seen ci ñi nga xam ne ñoom ñooy defar ay produits yu mel nii produits yoo xam dañ koy lekk ñu ne

dañ koy day tax euh, dañuy teel a bëgg suukar te loolu day indi yenn feebar yu bari yoo xam ne ay obésité ak ay yu mun a indi ay diabète et donc loolu nekk na loo xam ne ñun mënuñ ko nangu ñaawlu nañ ko fu ñaawlu tool léegi nag li ñuy demandé mooy euh, ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy consommateurs yi euh, balaa ñuy jënd tamit ñuy xool li ñuy jënd lan la parce que ci bind ci li nga xamante ne bii moom mooy pot yi dañ ñun nañ ci bind lan moo ci nekk. Euh, da ngay gis ñu bind la ne la glucide nangam par exemple temps de gramme ba pare ñu bind ci tamit ne sucre temps donc boo gisee loolu rek xamal ne dañ cee yokk suukar te loolu nekk na loo xamante ne bii du lu xel war a mën a nangu. Hmm, nekk na lu xam ne du lu xel mën a nangu di kàddu yi Momar Ndao njiitu est-ce que est-ce que seen di génn ci kuréel yi aar way jëfandiku yi. njiit réew mi président Bassirou Diomaye Faye di dalal ëllëg ñi bokk ci secteur privé bi ah, ci ngon gi lay doon li ñu war a waxtaanee nag mooy ni ñu fexee ba dund bi wàññeeku ni mu ko diggee waaye ndaje boobu nag tàmbali jox ci secteur privé bi ndaxte am na ñenn ci ñu ci bokk ñoo ngi gis ne dañ leen beddi ci ndaje boobu ah, bokk na ci ah, gi di groupe secteur privé développement wante tam conseil national des dirigeants entreprise de Sénégal innovation biram Yaya Wane ne nag loolu baaxul ci nguur déglu ko moom Birame Yaya ajuma lañ le président Serigne bu union des chambres de commerce président l'union des chambres de commerce du Sénégal woo pour laaj ma na jotoon naa suma carton d'invitation pour ñëw que ndaje bi président wala organiser le talaata euh, ak président organisation patronale yi ma ne ko man jotuma te bi ma ko jotulee tamit bi ñu laajtee nañu affaire bi présidence la jógee directement même ministère du commerce et de ko donc ma xam ne problème nag mu ngi doog commencé am parce que nag euh, secteur privé dañuy wax secteur privé secteur privé waaye secteur privé ñu ko xam tuuti lañu parce que dafa bëri ay bànqaas secteur privé am na yoo xam ne ni mooy établissement mooy chambre de commerce nga xam ne établissement public lañu nga xam ne ko état bee ko presque moom ak organisation patronale yi nga xam ne ñun moom lañ jiite maintenant bu fekkee nag ñii dañuy toog a toog nguur bi nag kenn waru leen wax dara fii trois mois moom dañ leen di may jàmm ak salaam mooy cent jours yi ñu wax même bu ñu defee erreur yu mel ni da ngay toog euh, euh, wax li nga war a wax après nag nga nga teey mais nag invité ñii bàyyi ñii ci ñoo xam ne ñu ngi doog a commencé seen i nguur loolu dafay commencé commencé tey suñuy xel mais nag mënu ñoo wax dara mais quand même problème moom mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi waaj a tàmbali nag parce que fi mu nekk nii booy invité secteur privé secteur privé am fu ñu

ah li daloon Macky sal mën na dal ñii te ñi nag yéenewuma leen ko cause pour laquelle bu ñu defee erreur yu mel ni danañ danañ danañ yëglu wax nan la war a demee. nekkoon euh, Birane Yaya bokk ci secteur privé wi jiite euh, ñaari kuréel yi di groupe secteur privé développement wante tam conseil national des dirigeants d'entreprise de Sénégal innovation ñàkkum ndox ca fu ñu ñu ngi leen ko doon wax euh, fan gannaaw bi nga ne forage bi nga xamante ne moom mooy ngàcc xorom si nekk si ndox ma moom moo daal di pann juróomi fan a ngi nii waaye nag ngi ci liggéey bi ngir daal di defar panne boobule ñoom sax xam ne ne am nay xam xamante ne jëlagum nañ koo ngir fexe daal baskan mi am ma ndox ci robinet yi ki ko xam ne mooy Ibrahima Fall moom mooy directeur territorial Sen'Eau zone centre ñu déglu ko ci micro am na tëgg jaabi. jafe yooyu nag li ko waral mooy panne boo xam ne dañ koo am guddi 15 jàpp 16 avril ci station de traitement d'eau bu localité bu Foundiougne liggéey bi nag pour dawalaat ko dafay laaj arrêt bu usine bi et malheureusement moom mooy seule unité de production d'eau dans la localité waaye fi mu toll nii suñu équipe yi ak équipe bu Sonas ànd ko équipe bu entreprise bi ñu ngi liggéey pour dawalaat usine bi parallèlement ñu ngi liggéey aussi ci yeneen alternative pour accélérer processus transfert d'eau bi jógee fële ca Ndiayeen Moussa Ndiaye nga xam ne mooy indi ndox mu mu neex bi ci biir localité Foundiougne ñu ngi xool ba xam lan lañ mën a accélérer processus boobu ci biir semaine bi ba mën ko indi ci biir localité bi pour wàññi jafe-jafe population yi aussi mettre nañ en place ay une flotte de camions citernes bi nga xam ne dafay jëlee ndox à l'extérieur indil population yi pour jàppale leen conteneur flexi-eau yi nga xam ne ñu ngi nekk foofu à côté donc def nañ benn raccordement bi nga xamante ni mi ngi jugee localité de Mbam local raccordement boobu aussi dafay dugal ndox biir Foundiougne ñaar disposition yooyu moo ñu permettre fi mu toll nii ñu mun a atténuer un peu euh, souffrance population yi donte xam nañ ne usine bi tàkk moom mooy li nga xam ne moo koy saafara définitivement. mu nekk na nekkoon Ibra Fall wàcce boobu nag moo jiite seen euh, Sen'Eau ca euh, zone centre. inaax tegal fukki minute ak ñett xodd ba xiini naag sañ a fil pour man RFM mooy rajo di gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. wax ci leneen jëm ci ñaxtu askanu Karantaba nekk ca diwaanu Sédhiou ñoom nag bokk na li ñuy jooy ah, màggetaayu seen juma jafa nekk ba sax wóoratul wante tamit ah, tali bi di bukkul ji pakaaw jëm ci pont ah, Kubada ba ca Makka ñoom ñu bëgg ci kilifa yu bees yi ñu daal di ciy jukk Bakary Konté population yi nekk fii ci dëkk diine bi di Karantaba ñom nak dañu bëgg ñi daal di réhabiliter grande mosquée bu Karantaba ndaxte ñi ne buñ ko défaré ba léegi ëpp na sept siècle Fodéri Diba moo yore seen kaddu. Karantaba dafa nek cité religieux bo xamni ku ko xamul dégg nga ko kon nak mosquée bu Karantaba mosquée bo xamni ça fait maintenant de 6 siècles voire 7 siècles ñu ngi demal ci nawet bi mosquée bi ni mu nekk ni mu mel nii suñ ko defulee dara nawet bi moom dinañ sonn nag duñu duñu teree julli nag dinañ julli waaye dinañ sonn te dëgg yàlla moom moom léegi fu mu toll nii moom ne xam nañ ni am nañ ci yaakaar ni coono bi war na jeex ci Sénégal léegi barrage bu Diobkounda Makka ak euh, yoon bu ñuy wooye boucle du Pakao fu mu nekk ni yàq na lool ñoom nag ñu bëgg ñi daal koy defaraat suñu mu gën a gaawee pont la am pour ñu mën a dem Kolda léegi fu mu toll bi c'est désastreux fu mu toll nii c'est impraticable suñu ko mënee defar dëgg yàlla moom état bu ñu jëlee ko mënoon foofu ñu yóbbu ko à l'état norme loolu moom ñu loolu moo ñu gënal parce que dund bi fa lay jaar yoon boobu su amee problème wala pont boobu su amee problème ñun kon ci nawet dinañu am problème gox bi mu ngi am beneen jafe-jafe maanaam ñu ngi daggee garab bi ci àll bi àll bi loolu la ñuy am si la ñuy permettre ñu mën a am nawet bu baax si la ñu mën a dund si la ñu mën a xewlu ñu daam suñu famille suñu suñu yaay yi fa la ñuy jëm too bay bay ceeb yi léegi àll boobu yàq nañ ko complètement xaj carrément yàq nañ ko xacat xacat carrément fu mu toll ni yàq nañ population yi nu ñu bëgg nag autorité yi

rajo Futur Media Bakary Konte des ci wàllum diine ba léegi ak ajik màkk gi ki xam te ne moo jiite force républicaine nationale ahlul quran moom nag di wax ci jafe-jafe yoo xam te ne ujaaj Sénégal daañu ko faral di dund ca makka ndaxte nee na moom li mu nemmeeku moo di ne gid yi ñi ni jël bu ñu demee rek dañuy fàtte ujaaj nekk ci seen mbiru bopp loolu nag la bëgg nguur gi daal di ci jëli euh, pexe ngir daal ci koy saafara ñu déglu ko moom euh, Baye Thiam Ahlan ci micro Papa Bala gi mun na ay manqué manqué yoo xam ne du lépp lañ mën a wax waaye daal bu ko defee daal nañ saytu nit daal bu ne la demal ba na saytul si boobaa ishaara la yenn ishaaratu teg fii li a aqal te kook ñun dañoo bokk ci délégation boobu euh, di liggéey si ñun euh, nekk fa di daj lu nekk pour ujaay yi di jot ay lu mucc ayib bëgg nañ nag ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax waaw incha allah ñi nga xam ne ñoo ne daal ci angaar ba di sonn di daj lu ne war nañ di dem te gunge ujaay ji waaye ña deful dara te di seen néeg yi di noppalu di nelaw ñooñu la ñuy jël remplacé ñu newoon ci angaar ba suñ demee ñu tëdd nelaw mooy jafe-jafe bi ujaay ji di jànkuwante fi demee dañ leen di bàyyi foofu dañuy wër dañuy réer. jafe-jafe mooy réer doo xamatu foo ne journée ba journée bi jeex wala doo gis ko lépp am na ñoo xam ne daaw nekk nañ fa est-ce que sax daf nañ tawaaf ndax ñun dem nañ ba dernier moment tawaaf ifadati maa doon dugg ci port yi am ñu laaj bu ñu wax ñu ne ñun demaguñ saas ba léegi te yeneen oto lañ ne tay gi dañ fa woon ne demaguñ tawaaf ñuy daal di jihaat ci loolu yëpp la ñu defi tawaaf ñeneen lañ fa gis ñu ne ay guide lañ te ñoom ci benn business lañ am xam-xam loolu daal bëgg nañ gouvernement bi fi ne en tant que coordinateur force républicaine nationale bu akhlul quran day dar ya ngi nit teew fi ma sha allah kon war na ci man buñ tollo ba yu melni am ni lance appel ci lolu gouvernement bi tok taxaw ci taxaway boobu mu nekkoon bay Thiam Ahlan jite kurel gi di force républicaine nationale ahlul quran ngir nag eh, fexe xeex mbëkk mi ndaw yi toog ci biir réew mi liggéey moo waral nguur gi nag taxawal ay projet ci diwaanu Fatick lu ci mel ni nag eh, projet Agri Jeunes ak eh, Proval CV lañ ci jublu nag mooy ndaw ñi jàppale leen ci wàllu mi su ko defee ñu am ci lu jàpp am nañu suñu jàpp région bu Fatick nag ndaw ñi góor ak jigéen dañuy gën di intéressé wu ci li nga xam ne moom moo di mbay mu moderne rawatina nag maraîchage Basirou Seck nag kër Modou Sala féete ci kër saalum Diané la fekk baax Ami Touré dëkk ci kër Serigne Aliou Guèye féete ci commune bu Toubacouta ñoom ñoom nag dañu leen boole ci projet yi ñuy wax Agri Jeunes ak itam Proval CV ñu am nag ay aménagement yoo xam ni dañ leen ko defal ca seen bërëb yi nga xam ni fa la ñuy bayee. le projet Agri Jeunes mais ñoom tam ñu ñëw ak ay aménagement secondaire gën ñuy faciliter liggéey bi. avant ñoom di ñëw ñun dañ doon root ci teen pour arroser

sàkku ci def itam ay aménagement secondaire fi mu ne nag ñetti commune yu nekkee ci biir département bu Foundiougne la def ay aménagement mu di kër Samba Gueye Toubacouta ak itam kër Saloum Diané def nañ fa ay système arrosage yoo xam ne day gën a yombal liggéey bi Youssou Ndong ingénieur polyvalent la ci projet Agri defee Agri di ñëw mattal li ci des pour que arrosage beeg yooyu daal di yomb ci ay système d'irrigation goutte à goutte yi dencukaayu ndox euh, da leen di permettre Agrijen dem campagne. Agri projet la boo xam Sénégal mon moo ko doxal ci juróom-ñetti région yi fété ci zone centre bi Nenu nee ñu lu tollook fukki site ak juróom leen aménager war ci def xaliss bu tollu ci deux millions de francs CFA Aminata Goujabi Fatick RFM. Aminata Goudiaby gannaaw mbay mi ñu wax lu euh, ni ak euh, université euh, El Ibrahim Ibrahima Niass université du Sine Saloum CROUS ba fa nek nak ñom xal du ni taxaw ci wàllum njàng mi gën a mën a taxaw ñi nga xam te ne ñooy étudiants yi loolu nag lañ doon waxtaanee ci ndaje ñetti fan boo xam te ne eh, seqoon nañ ko ak ñëpp ñoo xam te ne ñooy liggéey ci wàll wi lépp jëm nag ci fexe ba gën a jàppandi jàppandil nekkinu jàngalekat yi waaye nekk nekkinu étudiants yi leen dénk ko dañ ciy déglu Mamadou Sow ci micro Fatou Mbow. lépp loo xam ne da koy fas yéene def fii ak at yii di ñëw mu mën a am fu mu ko tënk ba nga xam ne day cohérent c'est-à-dire duñ nekk rek di improviser mais day leer. Euh, ñu définir une vision ay mission ak des objectifs C'est ce que fi indi woon document bi lu ko sookee lu tax ñu defar ko mooy loolu mooy il faut que ñu permettre CROUS quand même mu am ay outils am benn ligne directrice bu muy topp ak ay actions structurées pour mener sa politique def lim bëgg a def yépp donc euh, lii dina tax bokk na si li nga xam ne base bi pour que CROUS désormais mën a jël activité mi euh, def ko dans un cadre vraiment formalisé non seulement mais cohérent de façon à ce que résultat yi ñu yaakar yépp euh, ñu am ko rapide. Euh, wax dëgg taxawaayu ñi fi nekkoon di participants yi dafa nekk lu ma rafetlu mu bett ma nag si côté bu euh, positif. parce que xel yi ñu génne idée yi ñu génne ce sont des idées vraiment extraordinaires muy loo xam ne bég naa si lool kontaan naa si te que je sais que c' est juste un début personnel bi dañoo jeune et tout mais ça montre qu' ils ont du potentiel un potentiel boo xam ne dañoo war a nag fexe fi mu toll ni jàppale leen bañ gën ko éclore. nekkoon Mamadou saw bokk ci ñi liggéey ci plan. Euh, bu euh, stratégique bu université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass daaneel ak wàllum politique ak yenn cadre Pastef ya fa nekk ñoom nag ànd ñi ci li ñenn si seen ñoon ñi di ñaawlu li ñu joxal ministre région de Matam ci gouvernement bu bees bi neena na nag li leen gën a yitteel mooy nit ñëpp nag àndandoo takku ci gannaaw Jomaay euh, Faye ak Ousmane Sonko nee nañ tamit ñaaxaskan wi ñu tey bàyyi leen may leen ak diir su ko defee ñu mën a liggéey ak seen teeyaayu bakkan Ali Bandel mu safaanoo lool ak seen ñooñ ñu yëkkati woon seen kàddu am mbetteel gannaaw bi ñu siwalee liste gouvernement premier ministre Ousmane Sonko bi la yoon ñeneen ci waa Pastef ñoom nee nañu mbir moomu yóbbaale wu leen benn yoon ndax nag ñu jàpp ni ab rupture la ñu woote ba tax leneen moo leen gën a yitteel ba ñu xamle ko ci ab journée citoyenne bi ñu doon amal ci biir dëkkub Matam Demba Dem la ñu dénk seen kaddu di sant am na nag ñoo xam ne nag yëkkati woon nañ fi ay kàddu. di di naan Ah, de gouvernement biñu tek ni matam gisu ci bopam ñun lolu loolu wul ci Pastef matam ñun Pastef matam liñu wax moy projet ñun waxuñu ay nomination parce que ki wax nomination intérêt lay xol ñun nak intérêt matam moñu taxa jog donc ñoñu nonu di wax ci turu Pastef dañu bëgg ñu nopi parce que ñun mën nañ leen nopi lo té fuñu yëkkatee kaddu dëngal ñun dinañ yëkkati kaddu jubal donc ñun kenn du tilimal aussi suñu liggéey tay lañu gëna bëgg aussi gouvernement bi mu tek lu ñeel yenn chantier yu mag yi wa matam doon xaar ba té tambalé gul lu ci melni université Souleymane Niang coordinateur Pastef fi ci biir Matam kat jàpp ni faw kon ñu may nguur gi mu noppee dëgëral toogaayam. waaye nag dañ ni pour pour le moment dafa teel pour ñu laaj leen def leen ñu nii def ñu mais xam na ne le président Ousmane Sonko en ci jéego yooyu la jëm gis ne découpage pôle euh, économique yi ñu yi ñu teg xam ngeen pôle yooyu incha allahu rabbi ñun xam naa kenn duñu ci ëppale parce que ñoom seen projet bi mbay mi mooy mooy seen force de frappe te nag wax mbay wax la vallée du fleuve. journée ni ñoo ngi ko fi doon ci gën a fës di bale giñ doon bale fa ne woon marché central bu Matam rawatina ci takkalu dexub Sénégal gi di ko jëlee gouvernance ba ba ngay yegg ci waag bi mu nekkoon sa naataango yi Bandel ñaa fi ci doonu Matam pour RFM. RFM bitim réew. xibaaru bitim réew Georges Dëcc Diop lañ ci àndal John ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Ndiop réew Mali lañ koy tàmbalee foofu nag gox yu bëri nag ca diggu réew ma ñoom nag euh, daal di nañuy taxaw ne kenn dafa dugg. loolee gannaaw euh, bi ñu tegee loxo lu toll ci téeméer ak euh, fukki doom yi yàlla ñu jàpp ne ay jihadis ñoo def loolu askan wa fa yeewoo nag bëgg nguur gi gën a farlu ci seen i kaaraange seen i kaaraange bopp ak seen i moo mel Boubacar Dieng. benn ay bés gannaaw bi ñu jàppee lu tollook téeméer ak fukki nit yoo xam ni ñu ngi nekkoon ci ñetti bus yu bokkul xol yi tàmbali jokk ndaw yi nag féete ci gox yu bari ñoom daal jamono jile ay ñaxtu la ñu tàmbali di amal jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoo di yor nguur ku Mali daanaka yoon yu bari yoo xam ne dañu am solo lool fi nga xam ne moo di centre bu Mali dañ koo daal di bloqué lii ngir sàkku rek ci réew Mali ñi nga xam ne ñoo ko jiite mu di militaire sanitaire yi ñu gën a aar askan wi yokk seen kaaraange waaye tam lépp loo xam ne ñoom ñoo ko moom mu di seen alal fan ñu génni ñetti bis yoo xam ni ñu ngi nekkoon diggante Bandiagara ak Banxaas ay way fippu ñoo leen daal di dogale daal di fexe daal ba sofoor si dugal bus yi si benn àll bu yaa bu nekk foofule donte foofu waruñu fa woon jaar si benn déclaration boo xam ni association yu bari yu féete si fi nga xam ni moo di Bandiagara def nañ ko ñoom ñu ngi ñaawlu lu ñu jàpp ni ñàkkum karangele te am seen gox boobu li ñeneen ñuy woowee les force vives locales ñoom nag lu ñuy ñaawlu moo di ñàkk yëngu nga xam ni nguurug Mali mu ngi koy wane jëm si wàllum karange gi balaa ñoo dànkaafu nag xam ne ni su fekkee ni ñi nga xam ne ñoo jiite réew Mali def ñu seen kéemtalaay kàttan ngir jihadiste yi bàyyi téeméer ak fukki nit ñuy jàpp ñoom nañu gën a wéyal manifestation yi te bile yoon gox yëpp ñoo si bokk. Boubacar Dieng dem ba Rwanda génne ngeen fay génne ay nit premier ministre bu Grande-Bretagne ne fii ak euh, ñetti weer la ñuy jëlee avion ngir dellu ay nit foofu la. ñu ne roplaan yi faw ñu décoller ak lim mënti am loolee la Rishi Sunak euh, xamle ci ab conférence de presse euh, la ko xamle tey ci suba boobee conférence de presse nag ngir wone yan jumtukaay la nguur gi di jël foofu ca Grande-Bretagne ngir organiser. jëflande yooyee euh, expulsion Sodatia bu go to ci premier ministre bi premier vol bi nak waroon na dem ci diirub fuku wala fuk ak ñaari ayubés lo xamanteni nak dafa nar a ne le gouvernement bi bëggoon mom tambale, volume yoyu tambalé ci début printemps bi registre nak nak mom dal dina joxoñ baram opposition bu chambre haute bu parlement bi ne dafa japp ne ñom ñoo bëgg vol ngir ñu gouvernement bi ñaari at a ngi nii mu tek ko tek ci yitt danaka bokon na ponk yu a fess ci li nga immigration clandestine bi lool tax projet bobé nak, la ko taxoon moo di yóbbu ca Rwanda ñi nga xamante ni dañoo demandé woon asile te duggoon illégalement ca Royaume-Uni enjeu bi nag bokk na ci li nga xamante ni moom moo di élection législative yi te nga xamante ni sax opposition travailliste yi ñoom la ñu gën a gis que ni ñoo ca gën a jege ngir am ndam lëkkaloo gi diggante Londres ak Kigali nag dafay rek daal di tontu la nga xamante ni Cour suprême bi jëloon na ko ciy dogal ba jàppoon sax ni projet boobule teguñu ko ci yoon na ci loolee nag Rishi Sunak moom dafa daal di insister rek wax ni loi boobule ñu ko voté ñoom daañu commencé processus d'expulsion bi maanaam génnee émigré ya fa te ñi nga xamante ne nag jot nañ leen a identifié ca vol bu njëkk ba nañ leen nar a dugal. yokk na ci sax ne lu yéen nañ ay euh, roplaan charter ngir euh, def yooyee expulsion ca Burundi euh, lu ëpp téeméeri doom yaadama ñoom ñooy mujjee jóge fa ñu newoon ndax inondation ya loolee nag ay taw yu bëri ñoo ko waral tax ba ay glissement de terrain maanaam ay suuf si mapp naka noonu itam ngelaw gu bëri tax sax ba lu toll ci ñaari téeméeri wala ñaari téeméeri doom doomi aadama ak lik topp diggante weeru septembre ak juróom-ñaari fan ci weeru avril gii ñu weesu tax ñoom ñu le ministre de l'intérieur ak représentante bu mbootaayu xeet yi ñoom nee nañ taw yu métti yooyee yàq nañ lu ëpp fukki junni ak juróom-ñeenti euh, téeméeri euh, juróom-ñeent fu ñeenti téeméeri euh, kër yàq itam lu toll ci ñaari ñaari téeméeri classe ak juróom-ñeent gouvernement bi ak ONU woote nag ab wàllu ci wàllum uh, koom ngir uh, gën a uh, muccal musal ñi nga xamante ñoo di askan wi foofe ca Burundi ci Afrique du Sud haute cour bu KwaZulu Natal ba ca Durban mom gantal na li ANC sàkk woon ne pour ñu tere parti bu njiitu réew mu Jacob Zuma mu utiliser seen i tur ak seen i euh, logo muy nag le lundi bu parti euh, présidentiel ba euh, ci xëccoo yi nga xamante ne ñu ngi am parti bi di MK MK moom nag ne ANC amul benn droit ci tour ba logo ba. ANC nak euh, ñu teg ko ñu teg ko daan ci wàllu woowee tribunal jël dogal gu ni mel tay jot nañ dem Israël fofu nak euh, njiitu service renseignement militaire mo moo teg ci ndombal tank nee dafa teg ci ndombal nam kam ndax responsabilité ci commandement ci cong gi nga xamantene mo ngi amone juróom-ñaari fan ci weeru octobre ci Israël te Hamas defoon ko dom euh, ay nit ñu bëri ñakoon ci seeni bakan l'armée bi mo xamlé lu ni mel né nak ci ab communiqué né général Aaron Aliva euh de ci jubok ñi nga xamantene ne moo di njiital. état major ba chef d' état major ba ne nag euh, ñu tekki ndombal tànkam ci communiqué bi ñu ne euh, dogal gi mooy général Aliva dana jóge ci euh, fonction yooye dem ci retraite dem ci retraite saa ñu tabbee ki nga xamante ne moo ko fay wutu jaajëf Georges yegg si léegi ci xibaaru tàggat yaram ànd ceeg Malal Junior Diagne Diagne maa ngi laa nuyu. maa ngi la fay Alas Ndiogu. football lañ koy tàmbale ak coupe du Sénégal équipe eh, bu ndaw bi di awo bu nekk ca ca Matam ñoom nag taxaw temb ngir nag dalal jaraaf yu ñu war a dajal ci coupe du Sénégal. ayo bu Matam mi nga nekk ca national 2 équipe bu nu sos boobu mu yàggul dara sax waaye nee fu mu toll nii. Euh, seen diggante ak jaraaf ñoom amuñu lenn lu nu caa euh, moytu. ñu bëgg daal jongante ak jaraaf yi du leen daal di créer lu bees ci euh, championnat bii di coupe du Sénégal ñeneen nag ñu ngi waajal jongante bi ci ni mu gën a jekk foofu ca maatam nga xam ni foofu la Ali Bandel ñaa nekk vice président équipe ba Ibrahima Thiam lay wuyoo jokkoo nañu moom tey ci suba. bi ñu dugg ci compétition bi ñu ngi sóor ku nekk. kon donc muy jaraaf ak képp ku ñu mën a adversaire bu ñu am bu nekk rek. dañ koy jàppee comme yeneen adversaire yëpp soit jaraaf ak beneen équipe yëpp daal la ñu yomale daal. jouer coupe du Sénégal. ak équipe bu mel ne jaraaf match la boo xam ne du yomb ndax jaraaf mooy équipe bi ëpp lu mu gagné ay championnat ak coupe du Sénégal ci ci réew mi est-ce que loolu aussi nekkul loo xam ni pression la pour yéen. amuñ benn pression ci match bi waaw donc match bi sax boo xoolee ci lañ gën a nekk en l'aise parce que comme ñëpp dañu jàpp na jaraaf mooy favori bi d'accord nañ ko bàyyi favori bi na jaraaf yenu match bi loolu amul problème incha allah l'essentiel lépp lu ñu war ñun dinañ ko def. ngir am ndam ci kaw jaraaf incha allah yàlla ñu yàlla may ndam. population yi vraiment ñu ngi koy xaar muy région Matam bi ñëpp gars yi fas yéene génn aussi teeru jaraaf football moom football la rek parce que li may faral di wax ku nekk onze lay teg te équipe moom équipe bu ndaw amul. équipe bu dem foog naa ne national de du compétir donc équipe boobu doonul équipe bu ndaw te boo xoolee lu benn la rek parce que tey boo ñëwee suñu équipe bi am na booy yu bari yoo xam ne ren lañ fi ñëw mais ay Ligue 1 nekkoon. jóge fa ñu indiwaat def transfert ñoom ñëpp ñëw ci Hayo kon donc Hayo équipe bu mag la amul mun munta gañ donc loolu moom moom la ñuy doxee moom la ñu def suñu xel barki démb raay bu Cees lañ fa moo ñëwoon mais terewul gis nga nu mu fa mujj demee yàlla may ñu ndam aussi ñu ngi ñaan yàlla tamit yàlla mi yor ndam yàlla ñu yàlla may ndam ci kaw jaraaf mhm. kon nag ñoom am nañu liggéey ñoom aw ayo bu matam war a daje ak équipe bu mag bi kon di jarafa dem ba italie foofu nag derbi dafa am tey ji diggante inter de milan ak milan ac inter li mu bëgg mooy gagné su amee ndam di daal dégg daali nekk champion d'italie wante wa AC Milan duñ leen ca bàyyi ñu jàpp itam beneen jongante ba day dox diggante AS Roma ak waa Bologne jongante yi mi ngi bokk ci di jeexal fanweer ak ñetteel bi journée ci championnat boobee di Italie Euh, basket la ñuy wax léegi ak euh, list équipe yi qualifié ci playoff yi yokku na. yokk na ndax duwaan ca góor ña ville de Dakar sandark bu Dakar ak Duc ñoom ci njeextale bis bi lañ daal di kon am seen ticket ngir dem ca yooyu les playoff ca jigéen ña ASC ville de Dakar yokku na ca lees mën a jàngat ci lii ak itam la lanañ mën a njort ni moo war a xew ci yile playoff ci championnat Sénégal góor ñi ak jigéen ñi. Sode Thiam jot naa laaj giile laaj kii di Abou moo yore site bi di basket sénégal point com. déjà ci sur ñi euh, soo xoolee douane ak ville de Dakar ñoo nekk ci kaw classement bi ci poule A bi ñoom déjà qualifié nañ ci playoff yi deux derniers tickets yi des la ñuy euh, ça va se disputer entre kan puisque UGB ak GBA ak Sibac ñooy occuper troisième quatrième et cinquième place Il y a même Port bi nga xam ne mooy ci donc euh, tout peut se jouer fini. nii ci quatre dernières journées yi des ci phase de poule yi ci poule B bi d'Arc ak Dakar Université Club ñoom tamit décroché nañ seen qualification ba pare ñoom ñoo jël premier ak deuxième waaye Mermoz Ray ak Louga Basket Club ñoy ñoo ñëw si ginnaaw te ñetti équipes yooyu yaakaar naa bataille bi foofu lay amee ngir ñu mën a xam yan ñaari équipe si ñett yi ñoom ñoo mën qualifier pour euh, rejoindre Duc ak Gendarme pour les playoffs soo xoolee ci tableau féminin bi tamit presque même schéma bi la ñuy am ASC Ville Dakar ak Dakar University Club ñoom ñooy dominer poule A bi te qualifier nañ déjà pour les playoffs donc euh, yeneen ticket yi des ce sera sans doute entre euh, Deboloc Saint-Louis Basket Club et Diamaguène ñetti équipe yooyu daal ñoo taxaw en pôle fi mu nekk nii pour mën a xool ñan il est pour euh, bokk si top 4 bi dem playoff yi te des na 4 journées donc fii tout peut se jouer bu ñu demee ci poule B jigéen ñi vous c'est un peu indécis parce que suñu xoolee Jeanne d'Arc mooy leader lui moom qualifié na ba pare GBA moo ci top juste GBA tamit mun nañ ne c'est quasiment fait qualifié nañ pour euh, les playoffs waaye soo xoolee ASS Bob jaraaf CMT ak même UCAD ñom ñep mën nañ mën nañ bok ci ci mën nañ am sen chance pour décrocher ñaari ticket yi dess bop ak jaraaf ñoo nekk ci 3e ak 4e place bi waye CMT ak UCAD euh, ñom tamit ñi ngi reyante pour mun ci génn donc euh, ce sera une bataille rude suñu xamé né ñenti journée rek mo dess pour que phase de poule yi jeex. mu ngi noonu kon lolu moy euh, fuñ tollu ci walu basket bi as njóogu foofu itam dañuy daal di yam ci wàllu tàggat yaram. jaajëf Diagne. CCPS, comptoir commercial de plomberie du Sénégal. DSL Axel Marquebidi marque direction de la santé mère enfant. Nyolini ni may indi ci yéen kaay dañ ci ànd ak El Hadj Assane Gueye Sud Quotidien xëye njaaxlem waa île du lu jëm ci exploité gi ñeel teenu Sangomar gi ci wàllu pétrole ak gaz ak njeexite yi mu mun a am ci seen wàllu napp geeg environnement bi ci yéen bi docteur Abdou xereñ ci wàllu environnement ak lépp lu yorin ñeel wàllum xéewal yi bawoo ci suuf ne risque zéro moom amul fenn ca nag njeexite ci ñoddite gaz ak pétrole faaw muy faral di am ci géej géeg li ko wër nees di def ba néewal ko kay mooy wax ja accord waaye njeexite moom di impact mën na am ci mardi imsu bu accident amé ñeel installation yi naka nonit it luy posone géej gi wala kiw gi mu né fofé ci île di Saloum nappkat yi ñom seetlu nañu sax xaat né jeun yañ fa da napé mu ngi wañiku ndax nak walu exploité gi la ñeel pétrole gaz mi wala changement climatique yi faaw ñu def kon ay gëstu ngir lèr lu ci ba tay ci Sud Quotidien xnu Seydou Li directeur Petrosen exploitation exploration di ci xamle ne xereñu xéti installation yenu fa def dafa sóoraale luy néewal lool bép accident wala ñeex xarxite moumoudou Mamadou Baldé point focal pétrole à gaz division étude d'impact ci direction environnement établissement classé ne risque yi ragné nañu ko waaye nguur jël na matuwaay yépp ngir néewal ko bi la tribune Mom saax-saaxeem àll mi ci réew mi ak la wartane, jàpp japonais président Diomaye Faye mu ngi ci diggante ñaari mafia yéenekaay bi ne ay boromi daraja nak yu Gambie Sénégal ak Guinée Conakry tak nañu n'est ne ay complice ci yooyu njublang ca saafara nak su amul ngir napp mi saafara du am ci mbëkk mi di barsa barsaak gi gouvernement bi n'yurdate nañu tech tech li tek ministre ci premier ministre du filu bes bu nu sukkandikoo ci kay bi di bi le jour na décret président Macky Sall ci 2019 defoon na fi mennum càkkuteef gi ngir gouvernement Mohamed Bun Abdallah Dionne lolé nara yok yokk Ousmane Sonko nak dalul xelu ku premier ministre Buffon fi Akit Abdou Mbaye ak Mamadou direct news Abdulbay Mbaye ne tek ab ministre ci premier ministre mun na def responsable ci pour lu ci mel ni ab faux rapport bu tukkee ci ministre na mu nu fi demee woon bi ñuy jalgati code pétrolier bi ngir njariñel petro leneen lu premier ministre Abdoul Mbaye waxtaanee Direct News ci wàllu koom-koom mu ne génn ci UEMOA mooy ñàkk rek lu toll ci juróom-ñaari marché projet bi président Diomaye Faye proposé nag mu ne njombe dëgg la di catastrophe économique et monétaire ngir nag wàññi koppari état bi doxee nanu jaay avion présidentiel bi mooy xalaatam moom Abdoul Mbaye ku ne avion nag ne aéroport ci AIBD Direct News ne jàmm dellu si na fa syndicaliste bi di Djibril saxo naan ci yéenekaay bi ñu ngi gërëm bu baax directeur général bi Ablaye Dièye ndax accord yu ñu amal ci poñ yu bari misal yi xaj bu njëkk bu payu prime yi ci ñeel liggéeykatu ADS yi 2018 ak 2021 deuxième partie bi di ëmb mbooleem liggéeykat yu AIBD ak tollol ak yemale ñeel liggéeykat yépp mo xam ñu AIBD ak yu ADS walu politique santé ga door na xat digënté nguur gu de gi ak wa benn bokk yaakar di opposant yu bees yi vox populi né la ko waral moy porte-parole gouvernement bi moussa Sarré ci émission grand Direct RFM mu nan de soudé dafa am ñu seen xel dem ci waddal gouvernement bi dinañ ko ak askan wi ñi ëpp ci ñom soudé nak wa benn bokk yaakaar xalaat lu motion de censure ak yenen président dina jël ay responsabilité am Abdou Mbow ne ko saawaay sa yi de mom danaka di saf ay tëkku du yanu mana du yu yëngal ndax motion de censure compétence député yi la te yéen waaye yeewi askan wi defoon ngeen lu di mel déclaration politique générale premier ministre ba fi won Amadou Ba kon na nguur gi respecté séparation pouvoir yi ci Sénégal Yewwi Askan Wi source a dafa gis ne mbootaay la gu Sonko ak Jomay sànni ci armeel ya ndax ñu ne bi ñu nekkee ci seeni kàmb ci kaso bi gisuñu ñu xeexal leen moo waral ñoom waa coalition Jomay président rek lañ fas yéene liggéeyal Gambie ak Sénégal ñoom fas yéene wéyal bi ak liggéey bi gën a rataxal diggante boobee loolu Le Soleil moo ko Le Quotidien ne bokk na ci li ca génnee ay yëgoo ci wàllu accord ci wàllu défense ak sécurité président Bassirou Diomaye Faye ngir xeex nag ak dundu gu seer gi laas dina ci dalal secteur privé bi ëllëg ci talaata ji ngir waxtaan dañuy des ak laas waaye naatangoom di yéenekaay bi di réew mi jàllale kàddu yi ku tedd ki ca Tiwaawoon sëriñ Babacar Si Mouhamadoul Mansour ci kaw 94e édition ziara générale bi sëriñ bi tiisoo lool sëy yu bari yi tas ci réew mi ko noonu ñàkk afiyaal gi ñeel jigéen ñi ci néegu sëy yi wax na it ci coppite yi ñeel wàllu climat bi désert bi avancé rek ak yi lorangeem sàkku na it ñu jikkoo jëmbati garab wax na it moom kilifa gu tedd ki ci exode rural bi maanaam ñi bawoo ci àll bi wutal ci réewu taax yi xeyum ndaw ñi ndaw ñi nga xamanteni ni jël ci réew mi ñoy juroom ñaar fukki ak juroom te mo ne seen ñàkkum xey jéggi dayo lool gis na nak ne mbay mi mën na caa doon saafara ci lu gaaw sëriñ bi waxit ci daayira yi ak na mu doone ay bërepp yu mag ci wàllu njàngum alxuraanul karim célibataire it fàttewul leen nañu takki soxna wala ñuy woor ngir sellal CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal DSL ak marque bi di Dekakila direction de la santé mère enfant ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi Ibarri, gis-gis. mbokk yi je suis yéen léegi ci gis-gis tey nag li ñuy waxtaanee ci jàngalekat yi ak seen ah, di recensement enseignant yi nga xam te éducation nationale bi tàmbali nañ ko tey ji eh, ci ji ngir ci di secrétaire général bu kuréel syndical bi di SELS eh, euh, euh, ñu ngi lay fay sëñ bi Ndiogou. jërëjëf tam ci waxtaan ak professeur Assane Diakhaté euh, di enseignant chercheur ci UFR sciences de l'éducation et de la formation ci université Gaston Berger bu professeur Diakhaté ñu ngi lay maa ngi lay fayal al Hadj di nuyu sama naataangoo boobu monsieur Diedhiou. jërëjëf dañuy moom sax la tambalé mom moom monsieur Diedhiou la ñuy monsieur Diedhiou naka tey jii di 22 24 eh, ministre éducation jox eh, na ndigal eh, inspecteur yi ñu daldi amal recensement du personnel enseignant ni ngeen gisé lu ni mel. waaw ah, jërëjëf Ndiogou ma ngi lay nuyu wat di nuyu say auditeur waye nga may ma nuyu sama co-débatteur di sëñ bi Assane. Ndiogou ñoo rafetlu taxaway bi.

élémentaire, moyen secondaire, ba ci chercheur université mais si également inspecteur ya nga ñëw ñu la manqué le it manqué le manqué au pour téye classe Maintenant, quand na kon soo demee nuit ñu dañuy def recensement faw nga mhm. mais recensement tamit wouté na ak audit du personnel bi waxu ni audit du personnel recensement du personnel la ñu wax ah, am différence. waaw lool nak différence bu amna parce que mhm. xam nga suñu waxee recensement manam lu melni lu melni compter limbe. compter lim mm. ñaata moo fi nekk mm. léegi mën nañu yegg si xëy na après ci audit ne ñi fi nekk ñi ñu wax ni ñu ngi ci kayit bi ñu ngi fii est ce que ñooñee ñu ngi fii am déet loolu beneen étape la amaana recensement bi mën nañu yóbbee ci audit wala bok mën nañu yóbbee ci loo xam ne ñun moom la carte yi dem ba gis ni kon jàngalekat manqué na fii mm. ko kon faw nguuru sénégal gi bees gi jël matuwaay ci nu mu gaawee ba ni dañuy dem ci recrutement recrutement kat yu bees ci lim yu takku. loolu nak ñu le xaru nguur Sénégal parce que lu ci munte xew ministère éducation ci conseil interministériel bu ñu jógee septembre bi passé mo toog né effectivement jàngalekat manqué na ci lim bu upp 8000 mhm. ci bobu d'ailleurs ñun jógu dañu jàppoon ni xëy dañu juumoon ci lim parce que beaucoup de paramètres viennent nous avons tout Ce fait que nous avons une dynamique de gestion, nous, en tant qu'éducation, nous avons appris à nous rappeler le système. Si nous avons fait des choses qui manquent, nous avons une idée de génétique, classe, multigrande, double fruit. Nous avons une idée de génétique, classe, pléthorique, madame, sans élèves sur une classe. Nous avons une idée de double système.

ñu jël dynamique yokk li mu jàngalekat ci système éducatif bi waaye Ndiobo suñ koy def. mais comment ça fait-il que euh, jàngalekat manqué ci système bi alors que euh, jàngalekat yi xam nañ ne fii ci Sénégal euh, ñoom ñooy fonctionnaires yi ci ëpp ça su ne ñi ngi jël ay nit ak yoy ndax problème bi est-ce que du problème gestion du personnel du posé wu ci walum système éducatif bi. mën na am problème gestion am. waaye benn bi ci def Ndiobo suñu rew jogé na 7 10 ba 18 huit millions d'habitants. bu lim population bi yokkoo carte scolaire bi yokk kon faw ñu yokk classe yi faw ñu yokk limu jàngalekat yi waaye boo seetloo lim population bi dafa yokk carte scolaire bi gën a yaatu ñu daal di wàññi at bu jot lu ñuy jël ci limu jàngalekat yi rawatina nag boole ci ñii di dem à ñii di tukki di def yi leneen wala ñii di bàyyi système éducatif bi di dugg ci beneen ci beneen secteur kon jàngalekat bi moom faw ñu nangu ñun ñëpp ni manqué na waaye ñun dañoo jàpp ni lu ñu mënta doon bu ñuy def ñoom dañu jàpp ni am na loo xam ne ci ñoom la bàyyeekoo ñoom système éducatif national. Hmm. Euh, ministère éducation nationale. Hmm. parce que mënuñu comprendre jàngalekat bu am droit ne damay ñaan mise en disposition de stage nga war ko ko jox di koy bañal. kon ñu bàyyi ci xel. nañ ñëwaat ak yow bi. Mhm. jàpp naa ni ah. mhm. te su fekkente ne bëgg nañu xam fan la ñuy jëlee jàngalekat ñun SELS ñun syndicat d' enseignants yi ko woon ci ci lu lu yàgg. Diedhiou nañ ñëwaat yow nañ ñëwaat ak yow wéyal waxtaan wi euh, professeur Assane Diakhaté par rapport à recensement bi nguur gi di amal yow euh, ban njeexital la mën a am euh, ci système bi wàññi googu nga ñu wàññi li mu jàngalekat yi nekk ci Sénégal. waaw yaakaar naa ne eh, wàññi gi muy wàññi yiwub jàngalekat yi eh, dafa nekk lu am solo ci nguur gu bees gii di door a ñëw ndax wàññi bi dana leen tax ñu xam li fi nekk xam li nga xam ne ni moom lañ soxla xam li nga xam ne ni moom lañ war a jël ndax recrutement mënul ñàkk te nguur gu ñëw comme da nga ñëw pour andi ay jeexital andi ay coppite ci biir système bi war nga def un eh, état des lieux boo xam ne ni dana la jox cartographie bu leer nañ ci enseignant yi nga yor ak fañ nekk ak lañ fay def loolu yaakaar naa lu am solo la dana tax ñu mën a def planification mën a def un recrutement parce que bi ñu boobu dëpp bi at mi teroo ba léegi kenn defagul benn concours bu ñu commande bi ñu nga xam ne ñu ngi formé hmm. jotaguñ benn commande pour former ay enseignants hmm. donc jaadu nañu def un recensement boo xam ne nii nag il faut mu jox li yenn information yi ci ñi nga xam ne nii ñoo fi nekk ak li nga xam ne ni moom lañu soxla pour ñu mën a def seen planification a recruter mën a hmm. euh, bi bu baax a baax. Ah, euh, yi manqué nañu euh, ci Sénégal ñu ngi wax sax huit mille déficit huit mille enseignants alors que nguur gi mi ngi def effort yooyu ay kay programme ak yooyu ba sax ay programme spécial yooyu lan moo tax loolu feeñul ci système bi ba léegi ni Sénégal am na ay jafe-jafe am njàngale ko ci doy. waaw waaw ba léegi Sénégal day am jàngalekat yu doy parce que déjà li nga xam ne ni moom lañu soxla ak comme ni ko sama naataango wax nga xam ne nii population bi day yokk nga xam ne école yi day yokk classe yi day yokk ñii dañuy dem retraite ñii dañuy toxu dem yeneen service loolu lépp boo ko boolee ak li nga xam ne nii moom lañ soxla par rapport à l'accroissement jamais amul benn politique de recrutement boo xam ne dañuy jël en charge yooyu jox la moo tax ba léegi toujours déficit bi dafiy nekk ndax mi ngi ba léegi

chaque année wonno ndir nangami nangami en ah, jangalekat Mm-hmm. Euh, professeur Diakhaté jërëjëf nañ ñëwaat ak yow euh, delluwaat ak di Diédhiou ngir jeexal euh, monsieur Diédhiou li ñuy nemmeeku mooy am na ay jàngalekat yu nekk ci système bi mais ñoom considéré lu woon ñu ngi ci jafe-jafe parce que considéré lu woon comme ñoo xam te ay jàngalekat la la preuve mooy décisionnaire yeeg ñooñu est-ce que ñoo ñooñu buñ leen dugaloon du saafara jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi am ci wàllum njàng wi ci wàllum personnel. waaw Ndiogou wax wax wax ci nga dëgg xam nga li ma waxoon sànq rek ñu de d'accord nañu ci recensement ba waaye lu ñu lu ñu lu ñu bëgg a fësal mu leeral ko mooy ak luñ ci mënta def bépp jàngalekat mënta nekk jàngalekat bi yor classe maanaam mën ngaa nekk jàngalekat te nga bañ a yor classe li ko waral nag dina bare ndax feebar la ndax ki yore beneen administration scolaire ndax ki ki ki ku ñu détaché. ndax bokk kenn koo xam ne dana def mise en position de stage sànq waxoon naa ko nit moom bu demee ba daan bëgg naa jógee fii dem defi ci à la formation feneen yoon la ñu jog ko ko waaye gis naa ni bëri ci système bi ñu def mise en position de stage te joxuñu leen ko bi ci des comme recrutement recensement bi dina am dina gën a fësal loo xam ne loolu la ñu gis loolu la ñu jàpp ni ñëpp xam nañ ko nee na këtt na jonn kon jàngalekat manqué na ci Sénégal li war mooy am stratégie. am planification. mais nga boole ci urgence. nga boole ci également nécessité de l'emploi des jeunes ñu yor seen i lijaas di taxaw di xaar waaye it nga boole ci ne système bi am na ay ay niche ni ma ko mën a tuddee foo xam ne boo sukkandikoo. di nga am lim yu am solo yi nga mën a dugal ci système bi. te coono yu bëri la ci fekk. Mhm. parce que fekk na ñoom ñi am expérience fekk na ñu pratiquer ñii cinq ans ñi lu ko ëpp su ma waxee loolu sama xel day dem ci. Mhm. ñu nekk ci classe passerelle yi. su ma waxee loolu sama xel day dem ci animateur polyvalent yi. Mhm. waaye su ma waxee loolu it sama xel dafay dem ci ñu nekk ci classe préparatoire alimentaire muy ñetti ñoo xam ne su leen nguuru Sénégal jëlee non seulement dina am profil bu baax waaye dina mën a fexe mu yokk lii mu jàngalekat yi donte loolu mënta combler gàpp bi. Mhm. mais mais tamit yaa la dis euh, disparité yoo xamante ne am na parce que da ngay dem benn gox euh, par exemple ay diwaanu Matam ak ay diwaanu Tamba ak yooyu ñoom ñu am problème mu jàngalekat alors que boo ñëwee fii dëkku taax yi ñoom ñu am jàngalekat bu mët est-ce que euh, jafe-jafe am ci répartition bi ma dëggal ko ma dëggal ko mhm. ni jàngalekat yi manqué Sénégal noonu la gënee fës ci yeneen région moo xam Matam moo xam Kédougou moo xam Sédhiou ñu tuddee ko ay zone de départ yooyu nag jàpp naa ni il faut mu am une politique de maintien maanaam nan la ñuy fexe ba jàngalekat bu fa dem nga gën a am possibilité toog fa diir gu yàgg lu ko mooy da ngay génn bees ñu yóbbu la fa def fa benn ñaari at nga fexe ba jógee fa kon loolu mooy élèves yi nekk ci gox yooyu noonu du ñu mën a am possibilité bénéficier jàngalekat bu am expérience te loolu jàpp naa ni inéquité la lu ñu war a mën a corriger donte ne nag bu dem ci gox bëgg fa joggé dem feneen yoon ak ko may té gestion démocratique permettre nako mu def une compétition saine. gagné beneen poste way gis ni gouvernement Sénégal mun na am lëkkaloo ak collectivité, yi manam mo xam maire yi wala conseil départemental yi ba ñu am politique boo xam ne jàngalekat bu fa duggee du yakamti jógee foofu. dem ci beneen ci beneen diwaan. Hmm. kon loolu ay xalaat la en tout cas ñun en tant que syndicat am nañ ci ay idée lu ñuy xaar kay mooy ñu wóoruñu laaj ñu ñu joxe suñu xalaat ba kenn ku nekk en tout cas suñu réew wala système éducatif bi jëlee fi njëriñ parce que njóog damay fàttali ni ministre nee na dafa bëgg jëlee fi ñu jógee ci système éducatif dem ci société éducative hmm. muy lu am solo hmm. mooy lépp lu école def société bi gis ci boppam lépp lu école def mu dem ci société bi jóge ci société bi. Mhm. kon loolu suñ koy def une école de la société daañu ci boole lu bëre. waaye également daañu fexe. Mhm. ba bépp jàngalekat bu def ci système bi. Mhm. nga am motivation ngal la. ñoo wax nga ko sànq lan la nguuru Sénégal bëgg a def ci décisionnaire yi loolu de ma waxoon ko nguuru Sénégal waxoon ko autorité yi ñun de en tant que syndicat. tey daañu daje ministre éducation nationale dana nañ ko ko wax wax ko ko ci fulla wax ko suñu taxawaay wan ko ne lii mënta xaar faw ñu fexe am di solution ci li nga xamante ne loolu mooy problème décisionnaire yi parce que loolu la ñëpp di xaar loolu mooy première injustice bu ñuy réglé système éducatif sénégalais. jërëjëf Diédhiou ñu koy sant koy gërëm moom Amidou Diédhiou di secrétaire général syndicat bi di SELS syndicat des enseignants libres du Sénégal jeexal ak professeur Assane Diakhaté euh, professeur euh, recensement de Figulette Dans sa waxtu wi ministère de l'éducation defoon na ko laata loolu tam ay audit du personnel la amoon na même ci fonction publique bi mais après euh, top li ci top, moo am solo dañu gis ne d'habitude suivi bi moo dul am tey danañ mën a def ba nga xamante ne jafe-jafe yi am yëpp ci wàllum personnel bi daañu ko saafara jël ci matuwaay waaw yaakaar naa ne recensement bi war na am jeexital jeexital bi mooy bu ñu ko paree ñu xool càmbar système bi xool li nga xam ne nii moo ci nekk ay rëkk-rëkk wax nañ ci sànq zone de déshérité yu demee ni Matam ñi nga xam ne nii enseignant duñ fa nekk wax nañ ci aussi li ci ëpp solo mooy li nga xam ne nii mooy li manque euh, muy mbirum qualité te pour wax qualité wa il faut nga wax formation mm-hmm. il faut que ñu xoolaat système de formation bi système de formation bi nag ak recrutement euh, des des enseignants de qualité maintenant, parce que man damay un exemple qui est des de l'éducation bi de la de de Saint-Louis muy mhm. former des étudiants et xam ne dañuy génn accès licence nga il tout simplement de quelques mois de formation pour avoir un enseignant de qualité. mais est-ce que vous avez des leen jël euh, euh, c'est pas automatique. Oh non, ce n'est pas automatique. Il faut qu'il fasse le concours mhm. euh, pour, pouvoir être recruté. Mhm. Et je pense que c'est une niche pour les ne mhm. Il y a un élément aussi moi, am nga état ce qu'on appelle les centres euh, de, formation CRSPE, les centres régionaux de formation du personnel de l'éducation au niveau de toutes les régions. Mm centres aussi maintenant nañ ko lëkkale ak IFR yu demee université yi nga un partenariat pour agir ci sur la formation. kon nag euh, loolu yëpp volonté la xëy na ak nguur gu bees yi ñoom euh, seen gis-gis ci wàllum njàng loolu nekk na loo xamante ne euh, problème la bu ñuy jël à bras le corps maanaam fexe daal ba am des enseignants yu doy waaye tamit quantité ak qualité ci wàllum enseignants yi. effectivement bien sûr surtout quantité ak qualité et ensuite parler ak de leur motivation wax nañ ci zone de nga xam ne ko demee ni Matam ko demee ni Tamba. souvent enseignants yi dañ koy bëgg a parce que c'est pas parce que zone bi moo leen def mais dañ dañuy nekk ñoo xam toujours comme ni ko sama ndataango bi waxee dañuy am dañuy nekk en position de stage wala ñu bëgg a def yeneen formation pour améliorer seen carrière hmm. maintenant c'est bien aussi de penser à la carrière de l'enseignant en mettant à leur disposition euh, des dispositifs de formation et de formation continue yoo xam aussi dina leen fekk fañ nekk surtout la formation à distance ce hmm. que nous la faisons dans le cadre surtout ci formation des parce que wax nañ sànq souvent da ngay gis euh, euh, au niveau des ministère au niveau des des des inspections ñu jëlee am enseignant yóbbu ko ci bureau mu nekk mu mu génn ci fonction d'enseignant pour nekk administrateur scolaire je pense qu'il est temps de revoir question de la hein, du statut de l'administrateur scolaire mmh. parce que dafa war a am ku nekk di administrer am ku nekk di jàng. tant mmh. formation ça nécessite aussi la création du corps. Mhm. Mhm. jërëjëf euh, professeur Diakhaté ñu lay sant lay gërëm mu nekk euh, professeur Assane Diakhaté di jàngalekat enseignant chercheur nekk euh, ci UFR sciences de l'éducation éducation de la formation ci université Gaston Berger bu